gisin xaadim du ma sa morom yàpp ka ngay waxal la koonul moromam da ngay def lu mënul lii nga def tey jëf ilaa Tuuba jëf wata route bi léegi mu dem Kaolack jëf wata yu bees yi jëf yu bees yi jëf la BRT bi leen ñuy wax ngay jëf nun ñi noo war soow wax géwél rek la jik aw làmmiñ boo ci dul añ joo ca reer gàttal ko gàcce ngaalaama président Macky Sall xaadim waaw jërëjëf Alaaji Ablaye Mbaye Pekh waaw monsieur le président ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yow ak sa gouvernement yàlla may la fan wu gudd ànd ak wér waaye président Macky Sall 1958 gréwu simino bi jëkk a am uh-huh. ci la Madia Diop jëmee Mali ñu exilé ko président Macky Sall góor gi Ablaye lii cinquante huit lii la bëggoon monsieur le président Macky Sall Ousmane Ngom gere bu lii la bëggoon monsieur le président Macky Sall waaye monsieur le président Macky Sall dama wax ni gaar bii nga xam ni moom nga defar tey ñu duggee fa saxaar am fukki minit ak juróom ñëw jam ñaajo 1968 gréwi sémino bi aman ñetti weer ñu rey ci fanweeri ak juróom yaa delloo si waat démb réew mi kon wax naa ni fexe nga tey ba jam ñaajoog Dakar juróomi waxtu la nit daa def léegi fukki minute ak juróom indi nga compagnie aérienne muy Air Sénégal da ngay duggee Sénégal dem New York directement jóge fi dem France waaye BRT bii nga indi nag muy saxaar goo xam ni kii moom mooy train régional ñu ngi lay félicité di la ndokkeel nga indi BRT di wax ni man daal li may ñaan mooy ñaar fukki at nga yoraat ko réew mi nun communicateur yi nu ngi lay gërëm ndax président mbay Mbaye démb ci guddi heure bii lanu woo nenu président nee na lu muy def dana nu ci bokk kon ci turu président Mansour mbay le président communicateur traditionnel ñu ngi lay félicité di la gërëm di la wax ni sansu réew mi mooy nga toogaat ñaar fukki at jiite réew mi man waxuma deuxième waxuma troisième vingt ans merci monsieur le président